<laughs> alors Mouhamed Mbaye euh, tey kan mooy sa gan ak euh, naka ngeen ñu nar a bégalee bégal téléspectateurs yi également parce que ñu ngi leen di xaar du bi sànq. ko sa bët xoolee sa xel dem ca sangu Makka ak Medina yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi noonu boo ko bëggee bégal laaj ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndaw ñëpp roy ko xool ko lu mu am lu ne njool màkkaay ki ko ko may. di sunu bàyyi Pape Moustapha Mbaye mu daal di ñu bégal soppee daal di kontaan ñu daal di jàkkaarloo nag wax sangu Màkka ak Medina mooy kan Baye Moustapha yaa ngoog ñool Màkka ngoog téléspectateur yaa ngi noonu. tey. <laughs> ñaari ñaari Mouhamed yi ma jàkkaarloo. macha macha allah macha allah. Mm-hmm. Muhammadu Rasulullah la ilaha illallah dëgg muhammadu rasulullah muhammadu rasulullah Muhammadu rasulullah yeey muhammadu rasulullah yeey jëmu jooje yow yaay muhammadu rasulullah ku ñu bind yaa tax muhammad ku ñu bind yaa raw yaa leen gën a Muhammad yaa leen gën yaa

Mmm, doom ay waay waat naa ni sa doom jooje moom mooy muhammadu rasulullahi ami jural nañu doom doom dootu mel ni moom loolu faat na ba mukk mukk mukkee seydil awalin ay waay wa seydil axirin wa imaamul mursalin sa trondoo moom mooy seydil الأولين أيوة وسيد الآخرين سسوبي وإمام المرسلين kooku mooy awwaliin ay waay wa sayyidil aaxiriin sa soppe wa imaamul mursaliin mm, ana ñi bëgg yoon ca la Muhammad waa jooji moom mooy sey سيدي الأولين أيوة وسيدي الآخرين وإمام المرسلين ndey amina sa doom jooje moom mooy muhammadu rasulullah ina mama maay maa gën jër ina mama maama maay yoon ca la Muhammad masalun sifati kay naasi kama masala nujuumu almaaw bilay jëmm ju yow yaay Muhammadu Rasulullaay ina maama maay yoon ca la Muhammad masalun sifati kay naasi kama buubu persawa jooje moom mooy muhammadu rasuulullaay anta misbaawooy am na ñi ko bëgg kullu fadin fa maatas duru illaa ana li gaala du waaw bilay jëmm du yow yaay muhammadu rasuulullaay laka zaatulay sama géer a gën ci géer ñi yoon ca la muhammad fi dama iril kaw ni tuxtaaru lakkaluma at wala baaw yaay aysa sawaajooje moom mooy muhammadu rasulullah lam tasal yoon ca muhammad يونت يا محمد في دمائر الكون تختار لك المغات والاباء بلا جمد يا محمد رسول الله محمد رسول الله سسبي واي ما مدد يونت يا محمد فضلت من رسل الله بشرت هم هاديك الأنبياء بلاي جملة يا محمد رسول الله تتبام واجر واجاي maa ngi ñaan képp koo xam ni yaa ngi jàkkaarloog grand plateau boo jógee taxaw màggal yonent bi yàlla na la yàlla defal kooru jàmm maa ngi ñaan ku sopp rasulullah yi boo nuyoo sa morom ci barke Grand Plateau bi yal na yàlla la sa koor Baye Gaston Mbaye kenn sunu waaja sallallahu alayhi wa sallam nabi sunu ngeen ne moo ñëw ci yàlla di saraxu yàlla naan ko may ma yonent bi juddu talaata ñëw ci yàlla di ñaan yàlla naan ko may ma yonent bi juddu talaata àllarbaa ngi ñaan yàlla may ma yonent bi juddu bi su àllarba ngi naan yàlla may ma yonent yàlla Muhammad juddu alxames per ngoone ngi ñaan yàlla aljuma ngi ñaan yàlla may ma njool màkk juddu aljuma taaba moo waaja waaja sunu tërëndoo samdee ngi ñaan yàlla may ma rasulullah juddu samdi ngi ñaan yàlla naan ko may ma njool màkk juddu dimaas ba faatu beddu te daba sa baaya waa bay Gaston Gaston saison baa ngi ñaan yàlla yonent yàlla Mouhamed yu seddaay ende jamonoy tàngaay a ngi ñaan yàlla Rasulullah ju du tàngoo faatu sang déggoo ma ni la tàngoor seddaay ñëpp ngi ñaan yàlla njool màkk ju du si waajal waajal gannaaw yi jàkkaarloo nañu ñëw ci yàlla ni ko may ñu njol màkk gannaaw dina ci ñun laa ilaaha illallaah yàlla ngay taral Seydina Muhammad naan ko lu ma am yaa ma ko gënal waajal waajal xam nga kañ la njol màkk diggante dimanche ak waajee ngi gane àdduna diggante seddaay ak tàngoor bay gas soo yëg nga ni yaay njool màkk ne na ëmb naa ma ni maa ne doo musuma gis sama biir bay ber mbay ngoone yaay njool màkk ne na bi ma demee ba dimanche trois heures du matin jëm quatre heures la na bee ngi ci biir way juróom di wax ak nee na maa ngi dégg luy wax ci néeg bi bu ma gëstoo di xool. du ma gis ngi naan yaayam pareel maa ngi ñëw yaa ji nee na maa ngi wër ci néeg bi. gis nga li nee naa ay sa nabee ngi naan ko yaay man mi ci sa biir maay wax ak yow pareel maa ngi ñëw. yaayu nabi nee na ma daal di sangoo lu weex yaakaar na ci doom bi jaar fa lay jaar. gi gane àdduna ñaari jigéen ñëw nañu la ilaha illallah yàlla ngi sant rasulullah ci alquran jot màkka ngay ñëw bàyyeekoo ci nee nga ni bi mat wi jotee yaayu nabi nee na dama teen gis leer buy départ ci kaw samaan la ilaha leer gaa nga départ ca kaw yaayu nabi nee na ma koy xool ba ci sama ñëwal màkk ku mu gën xam di gane àdduna bopp lay jiital waaye bi laa ilaaha illallah laa ilaaha bay génn ca biiru way juróom nabi nee na yaayu nabi nee na maa ngi koy xool muy génne tànku càmmiñ yaayu nabi nee na ma bëgg koo xool am ñaar ñu jigéen ñu téye samay mbagg nan ma bi waa nee na ñaar ñu jigéen a ngi ma tiim rafet lool njool ca kaw a kaw yaa nga ñaar ñu jigéen ñi ñëwoon di jàppale yaayu nabi ci mag gi kenn ki Asiya la jabaru Firawna ki ci les yaayu nabi Kirist Babacar Ndiol Maka ngay gane àdduna jiital tànk ya benn yaayu nabi nee na maa ngi xool jàkkaarloo Kaaba gi ñu ngay gane àdduna 4 heures du matin jëm ga soo ngeen yaa ngi sa soppe bee waa. waajal waajal bay Mustafa yàlla nee na asamaan teeru leen jol Makka ngay ñëw yàgg nga ko war maal ko kee moo waajal waajal nee na ay sa quatre heures du matin jëm seen kër jol Makka nga nee na adduna te tabaa moo waajal waajal maanaam yow sunu tërëndoo bi mu gënee adduna dafa bank ñetti baaraam yi tàllal benn ba la ilaha illallah bay bi na bi gënee adduna mu ngi ci lalu yaayam tàllal benn loxo tatabaha ma ngay puukare wu waajal waajal. Baye Moustapha yëg nga ne bayit bi. tatabaamu waajal waajaay. dama doon bégal ñi nga xam ni ci woon nañu grand plateau. ma bëggoon leen a yëngal première partie ñu noppal ko ci ñëw deuxième partie. ay jëm ngi noonu waaye Moustapha firé gu bi de dama bëgg nekk dellu waaw kay dañuy bippe wootee ñu ca kanam la ñuy wootee Muhammadu Rasulullah wa sallam man su ngeen wootee xaw ma plateau bi nu muy